jàmmaarloo ñun institution yi responsable yi jóg nañu tey ba tax sànq si ngoon kilifa gi réer dawul de mu ngi biir dakaar bu leen nax seen bopp les jeunes l'autorité e sur place avion bougé wul jet privé jógul xam naa lu may wax bu baax bu bougé woon ma wax leen ko moo tax ma ne damay live léegi Bala ñu leen détromper bu leen seen officier doomi xaram yooyu di tromper y a de vos officiers qui couvrent les nervis de Marine Faisal..! Sénégal nag ñu ngi wax di waxat. Niger yëg ngeen ne ñu ñu rey nii premier 111 mort..! Amna ci 28 yo xamné tenu yi ñu soloon drapeau Sénégal mo ci nekk moo tax tey suñu armée nationale pour muy leer ñu ngi réunion nii réunion de sécurité bu mag ay officiers rek a fa daje ak sous booy yi tàng jëpp ñoo fa daje nii actuellement. parce que am na 28 yoo xam ne dee nañu au nom du Sénégal te kañ lañu dee au nom du Sénégal ak kañ lañu daan jël ay tenues di ko jox ay terroristes ñuy dem pour attaquer Niger au nom du Sénégal te ba pare ab général sénégalais moo koy diriger jeune militaires yi bañ nañ. huit cent yi ñu nar joxe nag peut-être que mu jóge ci élément Jérôme Bandiaky parce que foofu lu mu deede dee amagum fa ñoom quatre cent éléments. bu ñu xëyoon dégg coup d'état bu mu bett kenn. boo leen xëyee gis militaire yëpp daw jëm Touba xaman ne Macky Sall jiitu na fa dem boole ji. moo tax sànq bi ngeen ma woowee ne ma fu mu mën leen bu leen dem fen avion jógul dara jógul boo leen di dem dem leen Touba Code Boy moo tax ma live ko pour mettre au parfum tout le La peur a complètement e catégoriquement et définitivement changé de camp la peur a changé de camp bu Sonko deful woon lii nag tey garde ngorom bii heure peur bi du changé camp. ndax bi heure ñu ngi maintenir prison xam nañ lu ñuy def si xeex bi yërëmeen ngeen ko lool bëggoon ngeen def lu nekk mais encore une fois médecine am na fu muy toll ñoom dañoo waat dañuy jël Ils responsabilité des institution La justice pas une institution bu libre institution banalisée la police institution banalisée la gendarmerie institution banalisée la armée institution banalisée Pourtant, ici, Europe, dans les pays démocrates, hein, c'est les institutions qui dirigent. Nos gouvernements sont des managers. Mais c'est dommage pour l'Afrique. On n'a plus d'institutions. Je lance un appel Il y a les membres de l'État qui sont devenus conscients. Il y a les membres de l'État qui nous sont devenus conscients

Ni mu jaral démissionné xam y a des commandants qu'on a enfermés en prison actuellement yëg nañ ko ak ay inspecteurs de police suñ tëj ci kaso bi actuellement yëg nañ ko tout ça nag déclenché na benn affaire boo xam ça va péter où tous les prisonniers politiques seront libérés Ousmane Sonko sera libre par force sinon ce moom ne na lu ce xaar tey lu au Sénégal Ni. dinaa ci am léegi lu ma leer balaa deux heures du trois heures dinaa ci am lu ma wóor def ci live boo leen yeewoo yem ci mais maman yi institution yi ndërmelu na ñi gore dëgg nag am seen dignité reprendre nañu affaire yi en main ndax ñu ngi en réunion depuis seize heures réunion bu pareegul nag li fay jóge mënoo ko wax mais réunion bi tax na Amadou Sall daw na yeneen daw Amadou mom dafa daw parce que réer ne te dougul Touba mom mom vérifier na nekkul Touba mais Macky si bopam dafa jékki-jékki say gars di wote dafa daw dafa daw non non non détrompez-vous président le fin temps lay daw mënul teel a daw est-ce que vous me comprenez fin temps lay daw mënul daw légui nak lu mënti xew ci réunion bi ni je vais vous le passer mes officiers non je comprends

à minuit loolu la Pape Alé Niang woote ñun léegi nii la ñuy def man lii laa leen wax ay relayeur lañ yéen les patriotes ñun encore une fois ñu pour poste yéen yéen a dugg ci oto bi yéen ñii di falu ji yéen ay booy bi sant El Malick Ndiaye yéen ay Birame Souley yéen ay Issa yéen ñi politiciens yéen la ñu dugal ci biir oto ak Ousmane Sonko yéen ñëpp ñun ñi ngeen di gis ngeen di live ay katu oto lañ ñu sax ay mécaniciens dañ leen ni puus bu oto bi tàkkee ngallaawaay na ngeen dawal senegal dawal bu gaaw ngir gars yi gis ci seen bopp. ngallaawaay bu ñu leen poussé ba oto bi tàkk ngir yàlla waay daw leen cinq ans yi mat sëkk ngir réew mi respiré waat loolu rek la ngeen di ñaan.